أعوذ بالله من الشيطان الرجيم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ama ci mbégte loolu ak contentement ñëw ak yéen ci xew-xew xew bu rëy xew-xew bi lan la nag mooy conférence annuelle bi nga xamante ne suñuy yaay ay suñuy maam ñoom ñooy jàng ba mokkal ñëw taxaw di tari moo xam muy alquraanu karim wala mu doon li nga xamante ne mooy ay xadis bépp nit ba nga xamante ne rek teew nga si lu nu mel di nga yéemu ndax suñu mag ñi bàyyiwuñu ko ak xale yi muy ci xam-xam di jàng bu neex xew-xew bi nag kañ lay am le dimanche 26 mars 2023 foofu ca terrain Bombine ca Parcelles Assainies unité 2 képp koo xamante ne rek yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah invité nañ la ci bés bi buñ ko fàtte dimanche le 17 la foofu nga xamante ne mooy ca bi nekk ci Parcelles Assainies ar-Rahmaanir